yow mi ñu tudd Moustapha yaa jëf lu jommal surafa daane nga mbëri sooga dem yam na xadiimal Moustapha yow mi ñu yaa jëf lu jommal surafa daane nga mbëri sooga dem mbokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Ahmadou Muxtaar mi fi nekkal Cheikh Mouhamadul Moustapha mi ngi leen di nuyu ci turu njabootuk sëriñ Modou mustafa gépp mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal mi ngi rafetlu it bu baax taxawaay bii nga xam ni sunu jawriñ ju mat ja jawriñ di sëriñ Mbacke Mohamed moom sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moom sëriñ Modou Moustapha moo ko sosoon ci taxawaay boo xam ni sëriñ Khadim Mbacke ibnu Cheikh Mouhamadul Moustapha booba moo jóge bitim réew ñëw wuutu sëriñ Aliou Mbackeem sëñ Modou Moustapha señ mbacke joxe ndigal li ni su bes bi ñewé nañ taxawu suñu wajur wi lepp lu war ci bes bi nu def ko wo rakam ju tedd je serigne cheikh mbacke Madina ni ko lepp lu jëm ci ay ñam danaa ko def lepp lu jëm ci ndox ak boisson nang ko def sëñ cheikh nangul ko ko nam ko ko digalé lolé le sëñ mbacke man na def defal ko serigne Moodu moussa mamam ja su bes bi ñewé lepp doy seuk àgg fep te loola xalaatama ak bëggam lu baax ak xamna yit loolu la war biñu démé mu di taxawu ba yalla dogal la mu dogal yalla nako yalla dool yërmande ki teraanga mbatt ñu yag ci gannaawam di liggéeyal ki nga xamni tay tey Cheikh Mouhamadou Moustapha mohammed jël loolee nga xamni wajurum ba mu ko jëlee fa mu ko jëlee xam nañu ko fi mu ko indi xam nañ ko yal na ko fi yàgg yóbbu ca kanam ak kanam te yàgg fi lool te wér te indi itam yéen ñëpp ngeen di ko taxawu di ko indi moom day ba mu ko jëlee yokku na lool yaatu na lool te it gën naa mel noo xam ni su fekkoon ni ku ko sos del si woon na ba gis ko dana ko ni jërëjëf Mbacke Cheikh Moustapha Mohamed yàlla na ko fi yàlla yàggal yal na ko yàlla wéral yal na ko yàlla dooli xéewal lii mu def defal ko mbooleem njabootu sëriñ Modou Moustapha gépp suñ nee màggal gi ëllëg lay ñëw mu indi nii ay añ yéen a ko janoog moom suñu nee teel bi su màggal gi mu indi ko mu doy sëkk indi tey jii ay reer ëllëg mu indi ay reer ba ca gannaaw ëllëg sa mu indi ay añ loole ni ko sëñ Moustapha yokkee ni mu ko yaatale yal na sunu mbir nun ñëpp ci barke sëñ Moustapha yokkee noonu yaatoo noonu sëñ Ahmad neel mboro mi ko indi muy dewrin yi may bëgg tudd indi nañu tay ji ci añu jëkk yi ñeen fukki boori boy nañ kook jang juróom-ñaar fukki kamil alquran ak juróom boy nañ ko jang ay khasida lu tolo 451 astaghfirullah 63000 def nañ ko ci salatu ala nabi deux mille trois def nañ ko ci kon ñoom ñi nga xam ni ñoom la sëñ bi yebal ci ndigal la sëñ Baara ak Cheikh Jasaaka ñoo ñi sëñ Ahmadou nee na ñi ngi ànd ak ki nga xam ne mooy sëñ Cheikh Kan Ndongo Taïf ak Serigne Sarr Jasaaka ak sëriñ Omar Sey ak soxna Bousso ak soxna Yemu Ñaan ak soxna Faati Badiane sering mbay sek rijaal mi nak di sen jawrin mo len jité sëñ ahmadou nee mi ngi len di sante mi ngi len di gërëm mi ngi len di ñaanal xolom sedd na xelam dal na mi ngi ñaan nak ci daraaje cheikh mustapha cheikh mohamoudou mustapha mi nga xam nawet day niru maam ja ku sëñ mohamoudou mustapha rawon te nga bëgg am ci mom lo def mba lo wax ñu na nga daal daw seeti cheikh mustapha mohammed mi fi nekkal sëñ Mbàkke soxna lo loo ci bëgg boo ko ci wutee da nga ko am kon sëñ Ahmadou nee na mi ngi leen di seere loolu mi ngi leen di sant mi ngi leen di gërëm mi ngi leen di ñaanal xolom sedd na xelam dal na yàlla na ngeen ko fi yàgg indi yàgg na fa fekk ci barke sëñ Moudou Moustapha jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf waa waaye nag jataay bii nu nekk nu nekk fii ci béyti mbooloo mii ngéen séen mooy mbooloom Serigne Moustapha Mbakke moom sëriñ Mbakke soxna loo nu ñëw fii fekk fi Cheikh Ahmadul Muxtaar mi nga xam ne moo toogee jataayub Serigne Mouhamadou Moustapha yàlla na ko yàgg a tooge lool ak mboolem buntu kër yi sëñ Modou Moustapha yëpp ay rakkam ay doomam ay sëtam yëpp ak mboolem seex si nga xamante ne bii ñoo nekk ci kër geek ci mboolem yoon wi noo ngi leen di siyaare ci bis bii kon bis bii nag sëñ Serigne Muhammad mbake sering Mbacké Soxna Lo moo digal digal, jamono yi nga xamne Serigne Khadim Mbacké mom serigne Modou Moussa mo mo fi togal Cheikh Moussa Serigne Mbacké mohammed mo joxone digal dongoy terbiye yi ne len bis bi bu ñewate de len def ay bernde diko indil ki fi togal Cheikh Mustafa. Moustapha lola yitam moy wey ba nëgëni ci Serigne Khadim ba nëgëni ba ci tayeb Cheikh Mouhamadou Cheikh Ahmadou mukhtar bi waye itam lolu moy wey bi nga xamante ni bii 2005 Serigne Mouhamed Mbacke dellu na ci ngërëmul boromam Serigne Moustapha moom sëñ Mbacke soxna loo dikk nag jël ko di ko dundal bu baax a baax di ci soññi dongo yi ñu di ko ànd ak seeni soxna ak seeni doom di ko taxawal kon bis bi ndigal li ñi nga xam ne ñoo koy jëfe mooy dongoy tërbiye yi waaw mboolem ñi yewi ko ak ñewi ko ak seeni soxna ak seeni doom ñoo àndi liggéey lii loolu ndigal la woon ci Serigne Mouhamed ba ci Serigne Moustapha mii yow mi ñu tudde Moustapha daane nga mbëri sooga dem yam na xadiimal Moustapha yow mi ñu tudde Moustapha yaa jëf lu jommal su rafaa daane nga mbëri sooga dem